liiru nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di ziar sama gars yi na ngeen waaw man euh, ñoom ñëpp samay rakk la su ma ñëwee damaa war a ñëw man aw ma fenn furul Guédiawaye Marley sama rakk la Pape Thiam ah képp kuy mbër Guédiawaye rek nekk fi takk ngemb rek man maay sama. man maay monument Guédiawaye loolu yàllaa ko def comprendre ñoom yi ñu nekk samay rakk ba pare kon lu nekk ma dama caa a ne di leen ñaanal seen bis bi yàlla na leen yàlla may ndam lu sedd guy tam nekk seen njiglaay tey ñaan autorité Guédiawaye maa ngi leen di ñaan lancement bu may joxe gis nga xale yi ñoom ñëpp mu ndaw mbër mu mag laa yemale ku ci am combat dañoo war a ñëw taxu leen soutenir leen ndax ñun amuñu leen dul Guédiawaye géejawaay la ñuy tiituroo géejawaay mooy sunu Paris géejawaay mooy sunu États-Unis dañuy dem dem dikk lan jëm nag lan am maa ngi ñaanal Marley dimanche yàlla may ko ndam seen guy ak Pape Thiam 2 ak euh, Eumeu Sène Junior ak Bou Siteu ak euh, bépp guy gi di leen ñaan yàlla may leen ndam lu seen guy ñu jëm après le 31 daan gi borom Guédiawaye muy Balla Gaye 2 yàlla suturaal ko te may ko ndam lu seen guy yàlla mosul ñu cat at làmmiñ Guédiawaye ci kaw ci kanam. message bii nga lancé daa mel ni yow yaay le doyen de le doyen Guédiawaye am. maay seen mag maay seen mag lan bañ na ko lan la wax monument maa kay jeexal na wax maay seen mag moo tax ma leen di ñaanal yàlla may leen ndam lu sedd guy képp ku yeewoo Guédiawaye le 25 yàlla may leen ndam soo demee soo bëree daan muy commencé ko ci Marley Pape Thiam 2 at seen Sène at ak kii bu Siteu at beneen booy bi fils euh, bébé guy gi bébé guy gi yàlla may leen ndam si seddu guy at beneen booy bi Jackson moom it day bëre dimanche yàlla may ko ndam si seddu guy Jackson sama rakk la ndax ñun géej way leen am géej way la ñuy tiitaroo di ñaanal daan Sadji gi nag ay Balla Gaye 2 ay Balla Gaye 2 rakku jaan séeri bu di bàccili bàyyi Mouhamed bàyyi Serigne Saliou sa kees ah yàlla may ko ndam lu seddu guy laal ngóor si mu ne këlëb kopp ndax li ma koy conseil mu teey te xam ne am na combat am na combat mu teey bañ a demee fukk bañ a demee fukk dafa am combat ñoom ñëpp am combat. loo loo loo gis si école école Babacar ñaari mbër la génn. tubaarkàlla ñaari xale ñoo nga fa yu woon a bëre. muy Marley Pape Thiam 2. xale yu am avenir. am jom am jom am fulla am fayda. ku ñuy dajeel. ñu ne moo man yàlla suturaal leen ñu génn ci. li rek la li may ñaan man autorité ñoom xale yi. Pape Thiam Marley dañoo bokk ci Guédiawaye drapeau Guédiawaye la ñuy présenté su ñuy bëree ngir yàlla rasulallah autorité damaa bëgg ñu ñëw di leen jàppale. waaw autorisé lu am laay wax. ndax xale yi tubaarkàlla am nan mbooloo am nan ginnaaw message bi nga lancé waaw xale yi dañoo am mbooloo am nan ginnaaw suñu jógee géej way jóg marché bees jóg bàyyi laay jóg waxi naan jóg comprendre nga dama bëgg autorité su booy ñu ñuy jàppale xale yi nga miin Guédiawaye di lim tur yi nii man Guédiawaye laa juddoo fi laa yaroo Guédiawaye laa am Guédiawaye laa am xale yi samay rek lay jox ma sama cër dama bëgg ñuy jàppale xale yi ku ci am combat bi am na si doole wala amul doole calcul non sama xel dal noonu gis waaw le 22 août maagul li waaw maagul li maagul jërëjëf